asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi dal leen ak jàmm ci taamulaat fi kitaabi taqdis al ashxaas fi lfikr suufi mabxas bi ñu tiim tey mu ngi ci page bi nga xam ne mooy 473 mabxas bi fa nekk mooy al mabxasu thaani تحقيق أن هذه المعتقدات تؤدي إلى نتيجة واحدة هي تأليف المخلوق ليرالنا بس بس ينغ قمنا مملن يتدون دي حلول الاعتقاد وحدة الوجود بين رزلتا على أم رزلتا بمويجل بندف دف كو يالا رزلتا بمويجل بندف دف كو يالا كون مني عنوان بي لتخ borom téere bi fas ko ñaari mbir la benn bi mooy leeral xulul ak li'tiqaad ak waxdatul wujud seeni gravité ndax fa muy mujj mooy taxliq taxliul maxluqi talihul maxluqi mooy yàllaal mbindiif beneen bi ci li tax cheikh bi fas unwaan bi mooy relation bi nga xam ne moom la am ak téere bi mooy téere bi moom day jàngale taqdisul ashxaas sellal nit ba yëkkati ko ci martaba boo xam ne borom bi tabaraka wa taala tegut ko fa te mooy ci fii yëkkati nit walla mbindeef bi sifa amma teg ko ci palaasu yàlla subhanahu wa kon ñaar yooyu moo tax a jóg bi Euh, ci biir mabxas bi cheikh bi cité na fi ay jëmm yoo xam ne manees naa wax ne ñoom ñu ngi bokk ci ñi nga xam ne ñu mujj ñi lañ te seenu mbind ñu man saa déggee lii di waxdatul wujud ñooñu bokk na si di ahmad at tijaani abdul munim xifni abdurahman badawi ibrahim eh, cheikh ibrahima ñas ak Moustapha Mahmoud ñii ñëpp euh, manes naa déggee ci seeni mbind comme ni muy ñëwee ci kanam waxdatul wujud mu ne nag la zala hunaka nizaaun wa aqdun wa raddun xawla ma ida kaana suufiya kulluhum yactaqiduuna waxdat alwujudi am laa mu ne bindkat yi ak gëstukat yi am nañu wuute ci seen biir ndax manees naa wax ne sufiyanke yi yépp dañoo gëm waxdatul wujud wala maneesu ko wax mu cité ci bindkat yooyu ku ñuy wax Cheikh Abdourahman al Wakil nga xam ne moom daa gis ne ñi nga xam ne dañoo jàpp ne waa tasawuf ñoom ñëpp gëmuñu waxdatul wujud mooy ñi nga xam ne seen xam-xam xóotut ci tasawuf waaye buñ xootee ci tasawuf rek danañ xam ne waa tasawuf dañoo gëm la ibnu arabi di woote waaye dañoo gëm itam li ibnul farid di woote ak ñi nga xam ne jaar nañ seen yoon di wax ci waxdatul wujud te loolu mooy sufiyanke yi nga xam ne mooy sufiyanke yi jamono ji euh, Cheikh Abdourahman al Wakil dafa tegtaloo ci ñaari mbir ci ne mutasawifa yi nga xam ne ñoom la ñu dundal tey dañoo gom waxdatul wujud dafa tegtaloo ñaari mbir benn bi mooy soo duggee ci seeni wérda danga fay fekk ay baat ak i jumla yoo xam ne day xuut lool ci waxdatul wujud te loola dañ koy jox ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi yëpp tariqa bu nekk da koy jox ay taalibeem beneen bi mu ne ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy dunda tey ci tasawuf ñooña dañuy sellal ibnu arabi di ko màggal lool te naw ko ak téeréem bii nga xam ne mooy alfusuus nga xam ne dana ñëw ca kanam ak ki ñuy wax ibnul farid ak taa'iyaam boobu nga xam ne lu nekkan ca ci lu doy war ndegam nag dañ leen naw di leen màggal seeni téere yooya ñu di sa dellu te téere ya waxdatul wujud nekk ca Cheikh Abdourahman al Wakil nee na kon loolu day wane ne gaa yi gëm nañu waxdatul wujud daanaka li ëpp ci gëstukat yi yu jamono ji nga xam ne jàngat nañ tasawuf daanaka gis-gis boobu nga xam ne moom la cheikh abdourahman al wakil am même gis-gis la ñu am ku mel ne abdourahman abdul xaaliq ak cheikh al jazairi nga xam ne dafa konte sax al fanaau an wujudi siwa nga xam ne romboon nañ ko xam ne da ngay jeex ba dootoo jàpp ne dara amati na fi te loolu mooy waxdatul wujud da ngay jàpp rek ne lépp yàlla la لولا بن لاتي تي رجل تصوف ولا رجل سفيان كي يوم نيب نيكي نونو شيخ محمود عبد الرؤوف القاسم موميتام لولا جيس من ان الصوفيين كلهم من اولهم الى اخرهم الا المبتدئين يؤمنون بوحده الوجود inna suuf yiina kun min awwalihim ila aakirihim illa almubtadiin yommuu bi waxdati waxtu wujud nee na suufyaankey ladalee ceku njaka ba ceku mujjika lu dul nya nga kam ne dañuy doog a dugg ci mbir mi dañoo gum waxtu wujud loolii mooy gis gisi Musaad Wech moom dafa gis ne ñu njakinya. ñoo ji lii nga xam ne mooy waxdatul wujud di ko toppatoo di ko suuxat ba mu suñ jamono ji fii nag cheikh bi dafay wax loo xam ne lu am solo la nga xam ne man dama siy dégg ñaari mbir cheikh bi dafa indi xilaaf bi nga xam ne moom moo am ci biir bindkat yi ak gëstukat yi nga xam ne bind ñi ci tasawuf ak ni ñu gisee ndax sufiyanke yépp dañoo gëm waxdatul wujud wala gëmuñu ko bi mu noppee mu am mawqif boo xam ne dañ koy tuddee istiqlaliyatu albaaxis te loolu dafa baax lool mooy gëstukat daa war a doon koo xam ne day sukkandiku ci boppam di joxe xalaati boppam loolu waar wu am solo la ci waar wii di albaxsul ilmi waaye beneen bi it dama ci déggee man diqatu alfaham maanaam dégg gu sew gi nga xam ne cheikh bi am na ko yàlla may na ko ko te loolu yëpp dina leer insha allahu taala ci kanam moom dafa wax ne gayra ann alladi fi hada almaqaami amraani mu ne man de li nga xam ne moom laa jàpp fii mooy ñaari mbir yi benn bi mooy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 ñépp war nañoo xam ne doo gis kenn ku ñu naan kii kat ab sufiyanke bu mag la nga xam ne waa sufi tasawuf ci seen bopp nangu nañ ne kooku am na fatxu am na irfaan loolu nag ci maqaamaatu mutasawifa yi la am naa yi may wax sax euh, daanaka ñu bari duñ ko xam ñu bari duñ ko xam waaye maqaama la ci maqaama sufiyanke yi fatxug irfaan képp koo xam ne sufiyanke ci seen bopp joxoñ na ko joxoñ nañu ko ne kooka am na fatxu am irfaan kooka bu dee ne bind na dara boo seetee ci mbindam dang sa fekk luy wane ne gëm na xulóol ak littihaad su fekkee ne sax duut koo xam ne ku xuutu la ci waxdatul mutlaqa mooy jàpp ne yépp yàlla la waaw jàpp na yépp yàlla la mu ne nag loolu xamees na ko ci lu ñuy tuddee tatabbu wal istiqra loola nag am njàng la la laaj moo xam ne njàng boroom xam-xam moo ko mën a def waaw boroom xam moo ko mën a def mooy da ngay topp mbir yi ba soo génnee résultat résultat bi da wane ne lii kat moy li nga xamne ni mom mo am ci mbir mi su ma la jox misal ñii di nuhati gëstu gi gëstu ba gis ne kalam di wax ci làkku arab wut ismun wa filun wa jigi wut ismu di tur ak fi'l di jëf ak harf deng nga wut ñett lola liko indi moy tatabbu wal istiqra' loola nag moom la cheikh bi wax ne moom la def ba yegsi si natiija bi ñaareel bi ci mawqifu cheikh bi ba tey mu ne annahu ida taqarrara hada wa alimnaahu tadaalat ahamiyatu hada alxilaaf mu ne su fekkee ne xam nañ nag ne mbir mi noonu la demee ah kon kat daanaka bëreetu solo ñuy am wuutee ci ndax diw gëm na xolool ak littihaad wala diw gëm na waxdatul wujud wala diw gëmu ko mu ne ndax loolu amul benn intérêt su boobaa li am solo mooy ñu xam ictiqaadaat yi xolool littihaad waxdatul wujud ana fan lay yóbbu te fi muy yóbbu mooy taaliwul maxluuq yàllaal mbindeef rek foofa lay yóbbu kon nag buñ xasee ba xam loolu diw fas na ko wala diw fasu ko daanaka loolu taxut mu am solo kon mu إن اعتقاد أن الذات الإلهية حل في الولي الفلاني أو إن الولي الفلاني تدرج في تربيته وترقيته ورياضاته الصوفية إلى آخر ما قال نينا فسني جمي بروم بتبارك وتعالى دفع واتش تولي يدو سانغم wala diw sàngam am na lu mu doon jëfandikoo ci xeeti yar bakkan ak yéege ko ba àgg ci maqaama moo xam ne mujj na bakkanam sell daldi set ci lépp lu koy nëxal loola indil ko mu bennoo ak yàlla di littihaat ba yegg ci nafyul xayriyati daa di jàpp ne fi mekk leneen amatu fi yàlla rekk a fi am walla mu yegg ci ne al aalamu kulluhu huwa allah daa di gum ne monde bi li fi nekk yépp mooy yàlla wujud bi benn la te lépp yàlla la mu ne façon pas-pas bii nit ki fas ko loola su amee dara lu muy tegtale mooy day tegtale ne kooka dafa bëgg a yàllaal ka ko fas si moom daf ko bëgg a yàllaal loolu moo tax mu ne kon li muy def léegi mooy rotal ay texte ci mbindum ñenn si ñi nga xam ne ñooy waa tasawuf te texte yooyu mënees see déggee li nga xam ne ni moom mooy waxdatul wujud bokk na ci wax ji nga xam ne a cheikh at tijaani wax na ko fekk mu ngi doon charx Euh, waxi sufiyanke ba nga xam ne da doon wax naan ida safa laka min zamanika waxidun fa huwa almuraadu wa ayna daaka alwaxidu loola la muy firi moy bu sellee bu la kenn rek ci sa jamaano mu ne lool mooy doon li ngay wut yow sufiyanke bi la nga doonul kat kon am nga mu ne nag waaye kenn kooku foo koy jëlee nooy def ba am ko فوفو الشيخ التجاني جواهر المعاني بموي شرح بيت بوبو dafa wax ne haadal bayt lahu maana yaani mu ne bayt bi de am na ñaari jubluwaay am na ñaari maana mu ne maana bu njëkk bi ah mooy yaani ida safa laka alwaxidu min zamanika falmuraadu bihi huwa alilahu alxaq li mu ne bu setee ñeel la kenn ci sa jamono am nga la nga doon ut mu ne loolu liñ si jublu mooy yàlla mu daal di nag ne wa safaauhu maxqul gayri wal gayriya mu ne sell googu nag liñ si jublu mooy nga dàq fa lépp loo xam ne lenn la wala kenn la yàllay kese des maanaam da nga naan dara amut yàlla rek am da nga naan dara amut yàlla rek am subaa loo gisate rek jàppal ne loolu yàlla la مدادنا دغينان لا أين ولا كيف ولا نسبة ولا توهم ولا رسم ولا اتصال ولا انفصال إلا هو فيه منه عنه له به ما دنگا يگ بنگا قمنا دنگا يجابونه دونان أين أنا نانغم ولا نكلا wala askane wala fook wala yu mel noonu da nga naan daal dara amut rek ci gàttal mu daal di ne soo ne dara amut da nga naan lu dul borom bi tabarak wa taala mu ne foofu nag hada nas رغم أنه يوهم وحدة الوجود إلا أنه في الحلول من تكس به دقلا بوكوي قول li ngay seetlu mooy ne texte bi si waxdatul wujud lay wax mu ne waaye boo ko seetloo dëgg-dëgg di nga xam ne ci xulool lay wax mu indi ñaari firnde yu wane ne texte bi ci xulool lay wax xulool mooy wàccuk borom bi tabaraka wa taala ci mbindeef benn bu njëkk bi wane ne texte bi ci xulool la mooy at taxsiisu fi jaalihi al uluhiyata simatan li dalika al waxid alladi safa mooy jagle gi nga xam ne moom la indi jagleel ko ak nekk yàlla ci kenn kooku nga xam ne moom moo wax ne sell na te bokk na ci teqale yi nga xam ne yu ñu xam la ci di teqale diggante xulul ak littihaad bokk na ci xulul mooy da ngay jagleel da jagleel wàccug yàlla gi ci lenn ci ay jëmm waaw ci lenn ci ay jëmm moom doo jàppu ne lépp mooy moom waaye bokk na ci xeeti xulóol yi dangay ngay jàpp ne waa ji maqaamaam kowe na sellal na boppam setal ko ba yegg ci bennoo ak borom bi tabaraka wa taala waaye nag duwut ne yëpp yëpp nga wax ne moom la amaa wahdatul wujud nag moom danga naan lépp lenn rek la moom mu ne loolu moo tax kenn ci kilifa yi sufiyanke yi dañ koo laaj ne ko waaw ñi nga xam dañoo gëm waxdatul wujud ñu ne ko waaw mal farqu baynakum wa bayna nasara ñu ne ko waaw yéen lu leen teqaleeg nasaraan bi yéen nasaraan nee na isa yàlla la yéen ngeen ne lépp yàlla la qaala an nasara xassasu mu ne ah, nasaraan bi de ñoom dañ koo jagleel dañoo jagleel xulul dañ ne Isa suñ borom tabaaraka wa daa wàcc ci moom amma ñoom nag ñii nga xam ne dañoo gëm lii nga xam ne mooy waxdatul wujud ñoom dañuy wax ne lépp lenn la lépp lenn la maanaam lépp yàlla la xaj yeek golo yeek mbaam xuux yeeg yépp dañ naan yàlla la waaw nga seet rek mbir yi ni mu doyee waar loo xam ne nasaraan bi ñoom dañoo wax ne si isa lañ ko emale te borom bi tabaraka wa taala ne ñi nga xam ne wax nañ ne isa mooy yàlla borom bi ne na ñooñu ñu nañ waaw nit mën a dem nag ba yegg ci moom waxuma nit ku baax waaye ku baax ak ku bon lu rafetak lu ñaaw lu salteek lu tilim ak xaj ak goloog mbaam ak yépp lañ daa di boole rek ne moom mooy yàlla loolu lu doy waar la mu ne lii wane ne ba tey luy wane ba tey ne texte boobu ci xulul la duut ci waxdatul wujud mooy alxaalatu allati wasafa biha hada almaqaam maanaam ni mu melalee maqaama bi di laa ayna wala kayfa wala nisbata mu ne même agsi ci wala infisaal mu ne ila huna yastawi fii lxulul walwaxda foofu nag xulul ak waxdatul wujud ñoom ñoo fay em ndax amul dara lu leen utale foofu waaye bam dafa mel ni bi mu yégee ne léegi wax ji manees na see déggee waxdatul wujud daf ko taxsiis mu daal di ne illa huwa fiihi lu mooy yàlla mu ngi ca lu mooy yàlla mu ca kon loolu dafay wane na texte bi euh, ci xulul la dontu ne euh, li feeñ mooy ne ci waxdatul wujud la waaye sax nag waa ci kanam tuuti xam naa dinaa indi beneen texte incha allah boo xam ne it bu fis la ci waxdatul wujud ba tey fekk dañ koy jëlee ci jawaayirul maani cheikh bi mu ne والشاهد أنه نصح المريد بأن يلزم الشيخ الذي يعاصره شريطة أن يكون ذلك الشيخ قد صفى من تكسب لميلر الموي دي دينك طالب بيغا خامني moo namm suubu yoonu sufiyanke mu تقو di tëqoo sëriñ bi وانتناك موم ne jamono sëriñ ba na doon koo xam ne xat safa na doon koo xam ne ku set la ku sell la set ak sell googu nag moom ni mu ko firee mooy faaw mu effacé al xayru wal xayriya maanaam mu gëm ne dara amu fi yàlla rek a fi am te loolu feddaliwaat na ko ci jeneen waxam joo xam ne wax na ko ci littihaad wax jooja moom ci littihaad la mu ne وهو متالعة الحقائق بلا حجاب ولا خصوصية ولا بقاء للغير والغيرية عينا ولا أثرا وهو مقام السحق والمحق والدك وفناء الفناء فليس في هذا إلا معاينة الحق في الحق بالحق دادي اند بيت بيغا خامني داي واخني فلم يبقى إلا الله لا شيء غيره فما ثم موصول ولا ثم واصل لول nag موم اتحاد لاي تكتل موي bennoo اك يالا ndax dafa wax ne su boobaa mooy nga yër dëggi-dëggi mbir yi te doo am benn kiiraay benn jagle du si am lenn wala kenn dootu fa des moo xam jëmmu la wala jeexital la mu daal di ko firi nag ne loolu mooy maqaamu saxqi wal maxq yooyu mooy effacé ak jeexal lépp loo xam ne moo fi nekkoon fanaa bañ doon wax sax fii ul fanaa la indi loolu nag bu xasee am moom kon lépp lu fi desate rek yàlla la motax mu indi bayit bi ne falam yabqa illa allah la shay ghayru kon yàlla rek fi dess dara dotu fi dess ludul mom dadi na dina sama mawsulun wala sama wasilu amut ku ñu naan mo yegg ak ku ñu naan mom lañ yegg ci mom kon lépp rek daa dina mujj nek ben su ko defé na borom martaba bobu nak mom lañuy tuddé al kabir borom martaba bobu nga xamne dem na ba yegg ci wahdatul wujud al kabir ñu koy tuddé su ko defé nak ñune ne bi su gisé ku mel nonu na jël bopam nak dadi ko sànni ca kanamam dégg nga mel ni néew ni muy mel ci kanam ki nga xam ne moom moo koy sang du amati tànn du amati coobare du amati bëgg-bëgg kon defe naa nas boobu texte boobu wane na bu baax a baax ne euh, mutaaxiruuna yi ci waa tasawuf ñu si bari gëm nañ wahdatul wujud ba tey cheikh bi toxalaat ci abdul munim xifni mu wax ci yéeféer yi ne balaa may ñëw sax ma toxal benn texte boo xam ne xëy na nekkut sax si téere bi dëgg la waaye moom it si waxdatul wujud la te it mu ngi ci téere bii di jawaahirul maani dafa wax foofu moom cheikh bi ne fa kullu aabidin aw saajidin li gayrillahi fi zahir فما عبد ولا سجد إلا لله تعالى لأنه هو المتجلي في تلك الألباس nee na képp koo xam ne day jaamu wala muy sujjóota lenn lu dul yàlla nee na kooku loolu ci zaahir rek la waaye dëgg-dëgg moom yàlla lay sujjóotal maanaam kii jaamu xëram gi di ko sujjóotal wala xambu gi wala yu mel noona nee na kooku ci zaahir da nga naan jaamuwut yàlla sujjóotalul yàlla waaye ci baatin dëgg-dëgg nee koka yàlla lay sujootal te itam yàlla lay jaamu lol motax bam deme ba sa wax ji famuy daano mu dadi indi innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni ak mu dadi wal ilahu fi lughati huwa al ma'bud bil haqq mune batu ilah ci lugha moy kuñu jaamu ci deug mu dadi wa qawlu la ilaha illa ana yaani laa maabuda gayri amut ku ñuy jaamu ku dut moom setal lool laa maabuda gayri amut ku ñuy jaamu ku wa in abada al awthaana man abadaha fama abada gayri mu ne même ñi nga xam ne dañuy jaamu këram yi dëgg-dëgg man mii lañuy ñuy jaamu jaamuwuñ leneen wala tawajjahu bil xudui wa tadalluli li gayri toroxlu ga ñuy ànd ak suufel seen bopp gaa wàcce seen bopp ga yépp nee na teewut man lañuy jaamu kon loolu yépp euh, texte yooyu ak yi passé woon yépp daan ko mën a fekk ci euh, jawaahirul maani euh, abdul munim xifni moom itam bokk na si ñi nga xam ne joxoñ nañ leen si waxdatul wujud bi ndax moom dafa wax ci yéeféer yi ne abadullaha taala bi zaat nee na yéeféer yi nga xam ne dañuy jaamu leneen lu dul yàlla dëgg-dëgg yàlla rek la ñuy jaamu yàlla rek la ñuy jaamu ndax dañ ne ndax daf ne yàlla mooy xaqiqatul wujud bi maanaam am gi dëgg-dëggam mooy yàlla te kuffaar yi di yéeféer yi ñoom ci wujjoot bi lañ bokk te yàlla mooy seen dëgg-dëgg kon nag ñoom su fekkee ne jaamuwuñ yàlla it leneen la ñuy jaamu loola it jaamu yàlla la ba tey seetal wax jooju rek moo tax cheikh bi ne wa hada nassun sarixun fi waxdatul wujud mu ne lu lii texte la boo xam ne bu leer naññ la ba tey si waxdatul wujud te li muy jëriñ moom texte boobu mooy ne borom bi tabaraka wa taala mooy dëgg-dëgg bépp mbir yéeféer yaag ya ñuy jaamoog yépp ci loola rek la dugg moo xam doomu aadama la jaamu moo xam weer nga jaamu wala jant wala xërëm ñoom ñëpp ci dëgg-dëgg yàlla rek lañuy ñuy jaamu euh, man nag doon naa xaar lool ci nguur soosu nga xam ne moom da doon topp téere bi bi ma ko déggee muy wax ci bunt bi jàppoon naa ne dëgg-dëgg bu àggee ci waxu ñii dana ko jox yitte waaye moom jegewul leen sax tuddut seeni tur sax daanaka da leen a sori lool ndax wax ji euh, dafa dafa dafa leer nañ ñi ci waxdatul wujud dafa leer nañ ñi ci waxdatul wujud xam naa moo tax mu bañ a gàcceel ñi nga xam ne ñoo koy déglu mu bañ leen a gàcceel si jàngat texte yu mel nii mu daal di seet la nga xam ne Euh, ab sëriñam lañ sa tudd rek mu daal di jukki loola la sa des mu daal di gaaw noonu romb ko ndax euh, yooye sax moom moo gën a leerati waaye da ko romb noonu rek euh, mel ni koo xam ne gisu ko daal nee na ama abdurahman badawi faqad raxaba bi fikrati alxululi alsuufi tarxiban xaaran waltamasa lahu maa yubarriru nee na kii ñuy wax abdurahman badawi kooku moom Euh, yaatal na lool xalaat bi nga xam ne mooy xulul te kontaan si lool te bég si waaye sax nag da koy jéem a layal nag moom Abdurahman Badawi moom dafa wax ne xulul manis naa jàpp ne mooy lu bees li nga xam ne tasawuf jullit ñi indi na ko ndax mu ne lii nga xam ne mooy alwajdu di yëg-yëg wa talabul ittihaad sàkkoo bennoog yàlla wa sukkur ak mandite yooyu yëpp ay baati tasawuf la ay baat la yoo xam ne sufiyanke yi ñoo koy jëfandikoo nee na kulluha tuujadu fi anwaai tasawuf al uxra yooyu yëpp boo duggee ci yeneen tasawuf yi nga xam ne jiitu na lislaam manees nga ko faa fekk mu ne waaye nag lii nga xam ne mooy weccoo ay étape ci diggante jaam ak yàlla ak it nag di ko jox ndigal itam nag léeg-léeg mu mën a taxaw nag ne man maa yàlla ana ana allah bi siixatil mutakallim mën a wax ne man maa yàlla nee na lii nag mooy lu bees loo xam ne nag moom tasawufu lislaam moo ko indi nag waaw tasawufu lislaam moo ko indi ndax nee na distance bi nekkoon ci diggante yàlla ak jaam wi distance boobu dafa sori waaw mu nekkoon tasawuf nag moom moo fexe ñaari distance yooyu nga xam ne dafa nekkoon si diggante yàlla ak jaam bi moom moo fexe bennale leen ndax nee na sharia moom danaan jaam jaam la mbindeef mbindeef la yàlla yàlla la mu ne nag distance boobu dafa sori <laughs> dañoo war a fexe ñu jegeel ko mu ne nag li nga xam ne moo war a ñëw jegeel ko bennale ko loolu mooy alxaqiqatu suufiya subhaanallah lu yàlla suril yàlla mi wàccee sharia moom nee na mbindeef mbindeef la yàlla yàlla la yàlla suril ko tasawuf war a ñëw moom pour bennale ko jegelante ko loolu de xanaa damay bàyyi rek ñiy déglu ñu seet ñoom ban analise lañ siy def ak nan lañ koy déggee mu ne kon xaqiqatu suufiya moom moo war a ñëw daa di euh, bennale diggante boobu nga xam ne diggante diggantale boo xam ne bu sori la mu daal di ne soo seetee ci almasihiya di diina eh, nasaraan bi nee na diggale googu dippi njëlbeen ga diggale boobu daal nekkoon na loo xam ne lu doy waar la ci diggante yàlla ak mbindeef yi ci diggante yàlla ak mbindeef gi waaye mu ne bi nga xamee ne ñëw nañ ci état bu benn le ko dem ba jàpp ne borom bi tabaraka wa dafa wàcc ci isa nee na loola mooy la nga xam ne lu am solo la ci biir almasihiya léegi nag cheikh bi foofu mu tënk wax ji nga xam ne moom la abdourahman badawi wax xam nga abdourahman waxam ji lu garaaw a garaaw la mu ne dañuy seetlu ne an alxulula huwa alcunsur aljadid alladi ata bihi ma yusamma bitasawuf alislami manam hulul moy lu bes lo xamne tasawuf al islami indi nako ñaaral bi an al shariata al islaamiya atat bil guluwi fi ta'miq al shuqqati bayna al insani wallah sharia qala tuma gu magi rek sharia ci bopam dafa ñëwoon pour surile diggante yàlla ak dom aadama da doon suril diggante yàlla ak dom aadama te loolu mo wara am yàlla yàlla yàlla la nit nit la munu ñoo nek benn نيتل بمن أن الحقيقة الصوفية لعبت دورا خطيرا في الجانب المضاد حتى ردت للإنسان بعد حقوقه في الإلهية من دق دق تصوفنك موم سوين رول بو قمني بو أمسلو لا تيجنن ويدغا ما نام دفع ملني دادون قيخل دوم آدم پور شريعة لمكو قج نونو نكو دومنا نك يالا دومنا يجي مرتبة يالا دفع ملني loolu moo naqadi alxaqiqatu suufiya mu ñëw xeex ba delloo doom aadama sañ-sañam yooya ak yelleefam yooya ba doom aadama sañ a taxaw di wax ne man maa yàlla abdourahman badawi moom euh, kii moom nit la koo xam ne ni mu xuutee ci difaandar waxdatul wujud mom ëpp na lool waaw nga xam ne lay jubluwaay ba rek moo yëkkati doom aadama yóbbu ci maqaama luhiya maanaam ci palaasu yàlla yaa su ko defee it liñ seggee ci waxam ji mooy pas-pas bii di aqidatu nasraniya mooy bi nga xam ne dafa digg doomu mu ne dippi njëlbeen nga ci yàllaal doom aadama mu ne loolu moo tax suufiye yi nga xam ne ñoo nekk ci nasoraan bi aajo woowuñ di indiwaat beneen xalaat boo xam ne dañ naan laahut dafa wàcc si naa suut ak yooyu ajowuñ ko woon ñoom ndax loola mu nga woon fa ñoom waaye cheikh bi foofu def taxawu seetlu mu ne wax ji mu wax ne mundul bidaaya nee na loolu talbis la lëntal la li mu ne loola dippi sa njëlbeen nga mais ni dafa ànd ak diina nasaara dippi yàlla yónni yontu yàlla isa loolu dafa ànd ak moom cheikh bi nee na loolu ak lëntal la ndax diina nasaraan diina la joo xam ne ba ko suñ borom di yónni yonent yàlla isa alayhi salaam dina la joo xam ne ju set la ci pas-pas bii ñuy wax at tathliith mooy def yàlla muy ñett def isa yàlla def yaayam yàlla def euh, euh, suñ borom tabaaraka wa taala muy yàlla daf si setoon lool te it nag mboolem diina bépp yonent bu yàlla yónnee rek subhanahu wa la muy woo nitam ña mooy ani abudullaha malakum min ilahin xayru maanaam jaamu leen yàlla amul jeneen yàlla ju ngeen war a jaamu ku borom bi tabaaraka wa taala kon benn diina mosul indi ne doom aadama bi nañ ko yëkkati bem rombu palaas bi nga xam ne euh, fa lañ ko war a yemale amul benn diina boo xam ne mos na jàngale loolu waaye ki nga xam ne moom moo ko indi ci diina nasaara mooy shaul mi nga xam ne ab ziif la woon ab yahud la ñu ñu di ko wooyee bulus ar rasul euh, loolu mu ngi nekkoon ci atu euh, trois cent vingt cinq mooy ki nga xam ne moom moo dugal pas-pas bii foofu su ko defee keneen ki nga xam ne it cité nañ ko ba tey ci euh, mbi seeni mbind manees tasaa déggee wahdatul wujud mooy comme ni ma ko waxoon di Cheikh Ibrahima Niass moom it ci genn ñaan goo xam ne mu ngi ko doon bind dégg nañ ko wala gis nañ fa mu ngi wax ne warzuqna qutbaniyata kulli xutbin wa fardaniyata kulli fardin wa gawsiyata kulli gawsin wax jooja continué na bem aksi si wa turqiyana biha nga yéegee ñu bi salaat alfatih la si jublu ila xadrat alfatih alqatimi wa tutmisana fi muhammadiyatiha alahmadiya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 alqutbaaniya ak alxawsiya yooyu nag martaba la ci biir tasawuf demba yegg ci annubuwa ak yonent yaa dem ba jeexee ci al uluhiya muy yàlla ya subhanahu wa taala loolu nag boo ko seetlee bu seetloo setantal ko bu baax a baax danga nga xam ne it euh, loola day jàngale li nga xam ne mooy waxdatul wujud kon su ko defee incha allahu tabaraka wa taala foofu la ñuy taxaw ba beneen yoon sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu